salaamaaleykum les gars vidéo tey bi nag euh, xam naa du gudd parce que yéen ma ko doon laajte depuis démb ba léegi am na ñu ma topp di laaj euh, naka la ñuy dugalee code euh, exemple bu ñu la envoyé tey code naka ngay def ba mën kaa dugal léegi yéen ñi ma ko doon laajte yéen laa ko indil bu leen fàtte aimer vidéo bi ngeen partagé ko bu dee am ngeen jot bi ok gars yi léegi dama ñëw dugg xbet ma woon leen naka lañuy dugale dugalee code bi léegi pour yow mi nga xamante ne euh, exemple bu ñu la envoyé code coupon léegi fi nga koy dugalee da ngay def nii ñëw da koy bind nag après nga ñëw bés fii nii téléchargé gis ngeen exemple gis ngeen euh, équipe euh, équipe gañ gis ngeen coupon bii nii laa dugal léegi mais dama leen di wan rek mais nekkul ni maa ko dama kaa parce que dama leen dama leen doon wan rek léegi bu leen fàtte di abonné ngeen ñuy ndax euh, ñuy YouTube di gën a mën a partager seen YouTube bi ok gars yi vidéo yi pour yéen la dee leen abonné di partager